c'est-à-dire tey ji lii nga xamante ni mooy li nga xam moom moom moom nañ ñu jaay. Mm-hmm. Mm-hmm. ba tey ñu fal Ousmane Sonko ak Diomaye. Mm-hmm. te bi dañ cee ne. te franchement. comme ñu ngi ci. c'est que nit ki nga xamante ni dafa doxal ak yow nga am fal ko pour mandat un pour un mandat de cinq ans. mu ñëw même trois mois. mu am lu am solo lu mu wàññi ci dund gi. peut-être ñi xeet nañ. ñële xeebuñu. mais am na loo xamante ni la Sénégalais lambda bi xëy. ñaar fukk te kooku am na loo xam wàññi boobu am na loo xamante ni mi ngi. mi ngi mi ngi koy am ci quotidien am. c'est vrai que c'est encouragé quand même. mi ngi koy am mi ngi koy am ci quotidien mi ngi koy am ci quotidien am. wàññi wàññi bi c'est quelque chose de bien amul tax boo boo jëlee vingt cinq francs yi ñu nar a wàññi nga multiplier ko par plus de dix millions de pain yu utilisé tu vois que xaalis bu bëri. bu effectivement. Fra kon loolu bañu ma ko def. mais mais mais on va pas le dire aussi. tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure

moom moom ndeysaan def démb lépp di jaabante rek madame Adja dina tooy dina tooy rek dina tooy dem na fii eh, bërki ba ma demee golf la tooy rek léegi non normal mm, mm. parce que parce que parce que aji que parce que parce que dafa yor culture dafa yor sport euh, jeunesse tout à fait normal et que et que jeunesse c'est pas trop lourd. ministre boobu ministère boobu dañ ko waroon éclater dañ ko dañ ko xool aussi c'est lié c'est lié c'est c'est c'est am na link mais cest à bu si nekk boo xoolee nombre de services techniques yi ci nekk nga war ko piloter yooyu yëpp dafa bëri non mais y a des y a des y a c'est pour wàññi ñoom comme yéen ñu ngeen fi defoon jàpp ay ay directeurs di def waaw ay cinq minutes ak deux cent minutes. ministre au premier ministre au premier ministre. am na foofu. non loolu bu leen neexee ñoom ñaar ñoom ñoom du vingt cinq minutes lañ ñu waxoon la ñuy def. waaw actuellement ñaata ngeen toll. non mais dañoo respecté loolu. non non yéen a ngi ci trente cinq. waaw mais parce que ministère bi ne am na ay ministère yoo xam ne ministère day am. man mii tamit sama yoon nekk si déedéet loolu laaj rek. déedéet ah ñu ne ñëw si délégation si kii bi voyage wala sonn man bi mu tëddee parce que wax dëgg peut-être